Rafah TV abonné leen bu fii ci abonné ngeen laal cloche bi saa su ne ngeen am yu am solo yi bàyyi fii ci Rafah TV ak Rafah TV ñëppay dañ suñu bisu tey bi balaa ñuy def dara d'abord dañuy dañuy sant borom dëkk bi muy muy sëñ Muntaxa xalifatul am ñu koy ñu koy ziar bu baax a baax a baax li ko jox wàccuwaayam di ko sant bu baax a baax ci yaatal bi nga xam ni yaatal na fi EDK ba ñu dugg ci biir dëkk bi ba def fi lii moom suñu sang bu tedd bi sëñ Muntaxa yabal na fi doomam muy sëñ Abo moom moo moom moo inauguré lii di sant tam bu baax a baax sëñ Baara Laat nga xam ni moom ak EDK yàgg na du tey yàgg na lépp loo nga xam ne xewle nañ ko rek boo gestoo di nga gis sëñ Baara Laat kon moom tam Mbàkke Balla ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax bis bi nag lu tax ñu ñëw Touba Touba lu tax ñu ñëw fii ndax dañu am lu ñu seetlu EDK dafa am lu bees lu ñu naan Jolof ci kën boo xoolee Dakar gox yu bare bare bare bare lii ñu def fii am na fa te dañ ko bëgg yaatal ci Sénégal yëpp nga xam ne région boo boo boo dem capitale régionale boo dem ak gox boo dem ci Sénégal dañoo bëgg lu mel nii am fa ndax lu mel ni bi fa amee dina mën a suqali dëkk ba jàppale doomu dëkk ba comme nañ ko defee feneen ak feneen lañu ko lañu ñëwee biir Touba def ko fi te muy lu jaadu nag lool ndax waa tuubaa dañoo soxla woon lii ndax dafa am ñoo nga xam ni fii lañuy yónnee ba dakaar Jolof ci kën bi di ñëw ilaa Touba yi miin nañ leen trop ci bërëbu Jolof Chicken bi tout le temps ñoom dañuy yónnee su ko defee ñu passé seen commande ñu jaar ci benn site Jolof ci Chicken jël fa commande indi Touba léegi nag loolu nag dañ ni dinañ xar suñuy tànk Touba yi dinañ def lépp ba nga xam ni fii nga xam ni mooy Touba dinañ fi indi Jolof ci Chicken su ko defee ñi nga xam dañ doon yónnee dakaar ñuy far fi kon loolu nekk na loo nga xam ni sabab bi la li ko ñaareel mooy dañoo bëgg doomu dëkk bi di liggéey ndax fu mel ni lu mel ni Jolof ci kën bu amee ci gox dafa am emploi yoo xam moom lay créer emploi yi muy créer lu mu gàtt gàtt gàtt li mu néew néew néew néew néew dina mat 40 dina mat 40 emploi yoo nga xam ni moom la ñuy créer ci biir ci biir dëkk bi ndax fii fi mu nekk nii fii ñu nekk ci Touba Xayra tey la ñu ubbi Jolof ci kën bi mais lu mu gàtt gàtt am na plus de quarante cinq personnes ñoo xam ne ñu fi fiy liggéey ndax quarante yi ay emploi direct lañ ñi si des ay emploi indirect la yoo nga xam ni da am ay vigile techniciens yoo nga xam ne ñooy assurer tout ce qui sécurité ñoom ñoo ñoom ñooy vigile ak les techniciens de surface ñi nga xam ne ñooy nettoyer te ñooñu ci biir koñ bi lañ leen jëlee ñun suñu politique sociale mooy dem ci gox defa lu mel nii ba pare jël doomu dëkk ba ñuy liggéey kon loolu mooy li nga xam ni moom la EDK mébét ànd ceeg Jolof ci Chicken ñëw fii Touba def ko fi. waaw Jolof Chicken Jolof Chicken moom xam nga boo xoolee appellation bi boo demee yeneen i réew lu mel ni am na fa waaye beneen tour lañ ko jox lu mel ni ay KFC yooyu yëpp am na si yeneen dëkk yi ay Europe ak yooyu am na yeneen xeet mais ñu ne léegi comme lii ñun ñoo ko moomal suñu bopp au lieu ñu koy tuddee beneen tour dañ koy tuddee Jolof. jolof ci kën nga xam ne ginaar yi ay ginaar la jolof ci kën mooy loo nga xam ni day yëngu ci wàllu ginaar di ko jaay ginaar bu ñu saaf loolu nag ginaar yi nga xam ni moom la ñuy defar ci fii lañ koy jële Touba gi ndax waa Touba ñoom ñoo ñuy jaay ginaar yi ñun ñu ñëw ñëw fii préparer ginaar yi di ko jaayat suñu clients yi nga xam ne ñoo nekk Touba kon loolu day créer waat richesse yokk économie dëkk bi ndax ay doomu dëkk bi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu ginaar wàllu élevage ginaar ñoom ci ñoom la ñuy dem ñoom ñuy jaay ñu ginaar yi su ko defee ñun ñu ñëw préparé ko jox ko client yi fa kon daal Jolof ci kën mooy la nga xam ne vraiment euh, neex na sénégalais yi fi mu nekk ni tur la boo nga xam ne dañ ko sénégaliser maanaam ñun jéggaanewuñu jolof comme fii jolof dañoo faral di ko wax mu nekk bokk ci suñu dëkk ñu ne nag nañ ko tuddee jolof toftal ci chicken ji chicken mooy ginaar waaw pour ñëpp rek mën ci jariñ déedéet eh, dañoo fas yéene mooy li ma la wax xam nga fi mu nekk nii tey xeera lañ tàmbalee fii nii ci Touba déjà ci Touba am na ay barab yu bare bare bare bare yoo nga xam ne barabu Jolof ci kër bëgg nañ koo ubbi tey ubbi nañ xayra suba insha allah wala ci ci ci ay fan wala ci ay weer dinañ ubbi Daaru Xudus dinañ ubbi Daaru Marnaan dinañ ubbi Gédé dinañ ubbi Janatul Maxwa dinañ ubbi quartier yi tout yu nekk ci Touba yu si baree baree bare danañ fa bu Jolof ci gën pour nga xam ne Jolof ci gën day gën a jege day gën a jege waa Touba fépp foo xam ni gox la boo xam wala quartier boo nga xam ni waa Touba nekk nañ fa rek dañuy fexee dem foofu su ko defee ñoom suñu génnee rek jàkkaarloog Jolof ci gën bi jënd li ñuy jënd wala ñu toog ci cadre bi gis ngeen cadre bi investissement bu am solo lañ fi def parce que ñun du ñu cof dara amul dara lu ñuy cof nga climatiseurs yi boo ñëwee salle bi c'est climatisé dañ lay accueillir ñu yóbbu la salle VIP wala ñu yóbbu la ci salle yi nga toog def consommation nit ñi accompagner la ñu ñu accompagner la si say choix conseiller la wax la li fi am yëpp menu yi su ko defee yow nga jënd toog consommer tranquillement am na sécurité vigile yi moom laa lay wax ñoom ñoo fi nekk amul lenn lenn loo nga xam ni dina fi am loo nga xam ni lu baaxul la ndax ñun dañuy dëppoo comme Touba la ñu nekk dañuy dëppoo ak li dëkk bi laaj waaw moo tax doo fi gis kenn kuy sol ay yenn tuba yi doo fi gis yenn yoo nga xam ni yoo nga xam ni yu waaye di la wala yoo nga xam ni wax dëgg yàlla ku ko gis dina ah lii kii de warul def def donc ñun loolu nañ tàggatee suñu personnel ba nga xam ni dañuy am yar am teggin ndax dëkk bee ko laaj képp koo xam ne am na aajo bëgg na def ay commande quelle que soit la nag nu mu mënti toll bu ñu woote wooyee à temps muy màggal muy xew muy lépp lu mu mën doon dinañ ko toppatoo incha allah ba lépp loo xam ne commandé na ko indil ko ko ñi ngi xalaat sax benn service de livraison boo nga xam ni Dakar am na fa fii aussi tam dinañ ko fi def nga xam ni ku commandé au ngay déplacé wu du ñëwoo fii dañ lay fekki fa nga nekk jox la sa livraison kon loolu ngay wax dama la koy dëggalal bu baax a baax baax am na fi te incha allah fan yu néew bu soobee yàlla dina gën a yaatu bu soobee yàlla ba képp koo nga xam ni li mu commandé ci ay pièces bu soobee yàlla danañ def loolu saytu li nga ko li mu commandé yëpp ñu def ko ci anam yi mu gënee ñu livré ko incha allah loolu moom bu ci kenn am lu ko métti. waaw service bi mu doon service boo xamante ni service de qualité la parce que souvent service bu mel nii ñi nga xamante ni tàmm nañoo tukki dañu ko daan dañu ko daan gis fu nekk ci àdduna bi di dem France États-Unis Dubaï fu nekk di ko gis EDK euh, e nag indi service bu mel nii tas ko ci réew mi tey ñu indi ko Touba waaw muy service boo xamante ni vraiment service de qualité la waaw ñu moom la ñu indil waa Touba. waaw ñu si ëpp nag ndaw dëkk bi lañ mais jël nañ leen fii bien avant ñuy ibbi ñu yóbbu leen Dakar fii lañ leen jëlee yóbbu leen Dakar ñu former leen foofu former leen tàggat leen si liggéey bi ni muy doxee ak ni ñu bëgg liggéey bi doxee former leen si jox leen xam-xam bi war a mën a tax ñu mën a yor liggéey bi tey bi ñuy ibbi ñu delloo si waat leen fii ci biir Touba. clients yi mooy suñu priorité EDK clients yi mooy suñu priorité Jolof Chicken clients yi mooy suñu priorité. waaw le client est roi nit ñi dañu koy wax ñun dañu koy jëf maanaam dañu koy jëf jëfin woo xamante ni ku ci nekk dañuy fexe euh, boo boo boo amee woon xool bu naqari feneen sax boo duggee EDK wala Jolof ci kën balaa ngay génn nga am lu la neex maanaam si loolu la ñuy yëngu fexe ba client bi bu ñëwee Jolof ci Chicken non seulement dina lekk neex mais dina fi trouver service bu agréable boo xamante ni dina tax moom mu sawar a dellu si loolu nag. ci la ñuy tàggat ñi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyal ba ba nga xamante ni client bu ñu mënti recevoir dinañu ko traité traitement boo xamante ni moom dina jàpp ni moom ka fi mu ñëw kat def nañ ko buur vraiment loolu loolu moom mooy suñu priorité. waaw Touba moom vraiment. dëkk bu sell la boo xamante ni euh, yàgg nañoo laaj jolof ci kan tey indi nañ leen jolof ci kan indi leen qualité bu qualité boo xamante ni nag macha allah ndaxte xam nga jolof ci kan yemul ci defar ay ginaar kese. suñ nit ñi suñu déggee jolof chicken dañuy foog ni ginaar kese la yamuñu si ginaar kese jolof kan day def ay crevette jolof chicken day def ay poisson dañuy def ay filet de poisson dañuy def ay ay ay burger fish mooy burger poisson xam nga en plus dañuy dañuy def aussi fast food dañuy def hamburger shawarma sandwich pizza waaw yooyu yëpp dañu koy def waaw. Mhm. jolof kan moom bëri na ay variété dañoo ñëw fii tey ci Touba ngir ubbi si fii li ñu wax Jolof ci kin Jolof ci ci loo xam ne ña ngi ko xamee woon ci yeneen tur danga daan génn dem ca France gis ko génn dem ca Italie gis ko génn dem ca Màkka gis ko génn dem ca Dubaay wala feneen ak feneen gis ko waaye turu feneen lay doon am na ñu ko jël ba indi ko jëlee mi waaye turu ñooña lañ maintenir waande Demba bi mu ko jëlee indi ko Sénégal def ko changé euh, def ko localiser ko localiser ko mooy def na lu mel ni la ñuy def ba pare tudde ko Chicken Jolof nga xam ni produit yi ak ak ki koy produire ak ñi koy produire ak noobeeg lépp Sénégal kon nag loolu nekk lu am importance may lancer autorité yi autorité étatique yi ku mel ni kii réew mu ko am da nga koo war a jàpp ndax gannaaw créé wutal ndaw ñi liggéey ñoom la war moom mu jóg taxaw di wutal ndaw ñi liggéey boo xoolee fii ci sama gannaaw ñii fi ne ñëpp ñii ci ëpp ci dëkk bi lañ leen jëlee bi ci ci lii koñ bii nu wër bi mu fi duggee léegi. kon dèjà emploi yi ñu doon ñëw di ko jéem a créé fii moom créé na ko fi créé na ko Ndar créé na ko Dakar créé na ko Diourbel créé na ko feneen nag feneen partout ci ci Sénégal daanaka. jàppale bi nag nekkul lu luñ koy jox wala leneen waaye yombalal ko liggéey bi ak ñi mel ni moom ñëpp. ndax nit ki li nga xam ne daf laa war te nga néew ca doole kila koy defal kooku defe naa bu ñëpp defoon ne moom euh, sëb liggéey dana gaaw buñ xoolee ñaata laa la dem ba créé ci ku wuti sa xaalis ba am ko mu wóor la ne da nga am mënoo koo jeexal ci sa dund boo ko dencoon ci bitim réew weer wu dee nga coppate ci dara lekk yaag sa njaboot mënoo koo jël nga ne déedéet dama koy delloosi ci réew mi jël doomi réew mi àndandoo ñoom bokk ak ñoom li ma am service Sénégal def fi loo nga xam ne même lu yàgg-yàgg itam loola dootu fi jóg ndax kenn ku nekk xaman na ni kenn mënatul buddi station yi fi nekk kenn mënatul buddi ci kenn jula fii fi ne ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon nag ku mel noonu doomu réew la boo xam ne do bu ñu war a tiitaroo la ku ko am da nga ko war a tiitaroo ñun nag fu ñu gisee nen dañ naan nen a ngi nii fu ñu gisee ku def lu baax itam ñu yëkkati ko ba ñëpp dëkk ko ndax ki ci nekkoon xam ni meñ ci lu baax ki ci nekkagul woon jàpp ni lii war na cee nekk eh, jëfam jure jii mu jëf ci Touba rawatina nga xam ne ubbite gi kilifa yi yëpp waroon nañ cee teew tey jii waaye yàkkamti gu ñu ko yàkkamti ak bëgg mu gaaw ñëw ci dëkk bi ak lu baax boo koy def doo ko waaj moo waral woowuñu fi ñu baree bari wane yaakaar naa ni ba ci fan yu néew ñëpp ci kilifa yi dëkk bi incha allah kenn ku nekk di nga dox ak sa tànk ba ñëw fii xam ni eh, jëf nañ fi jëf ju baax joo xam ne ju amal njariñ nit ñi la te yow lañ ko jëfal. rafetlu euh, mbir mi nga xam ne moom la euh, sëñ Demba Ka euh, ubbi fii tey ci Touba nga xam ne yàgg na fee def ay investissement yaakaar naa station ADK mu ngi ci dëkk bi waaye tey mu yokk ci lii lii nag. njariñ la lu am solo yoo xam ne euh, da koo am ci ab dëkk muy investissement ndaxte investissement wàll yi muy laal ci ab dëkk day bari te lenn lu ne njariñ lay doon duy tàbbi ca dëkk ba ndaxte nit bu bu melee noonu mooy tax lu mu gis ci àdduna lu baax rek da ko yéene am réewam te réew mi yëpp la ko yéene loolu moo tax mu dox ba agsi fii doon yu bëree bari la ci ci ci Sénégal kon euh, li ñuy def rek mooy dañ koy ñaanal rek mu gën a law gën a yaatu gën a am barke te di ko ñaanal rek la cheikhul xadim ñaanoon ci ba muy sañ ci dëkk bii ca xasida ga nga xam ne la mu bëgg ci dëkk bi yëpp ci la ko ñaan te lam ca doon ñaan moo waral yi yëpp di ñëw ba lépp lu am ci ci ci àdduna dugg ci réew mi ci lu baax rek daal di ñëw Tuubaa loolu da koo ñaanoon bu yàgg kon dañuy barkeelu rek si béy doo nga xam ne moom la waxoon ne wajulub lahal xayra minal jihaati as-sitti wakfiha nil afaati yow yàlla maa ngi lay ñaan nga xëccal sama dëkk bi di tuubaa ci juróom benn wàll yëpp yépp yiw bu baax rek di fa jóge di ñëw kon lii def cee bokk waaye béréb bi tamit ñu ngi ñaan loolu tamit mu mu taasu ci barkeb bayit boobu yéene ji mu amoon ak yaakaar ji mu amoon ba def ba def lu toll nii ci Touba lu rafete nii lu lu amee solo nii